waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal gars yi maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di béggee maa ngi leen di jox seen wàccuwaay gars yi ginnaaw ay nag jàmm ku ne xam na ni Pape ju fan yee paase am na issue ak waa baara mundi ba tëj boîte bi ndax moo nekkoon ci dëgg ba àdduna bi yëpp xam ni moo nekk ci dëgg waaye nag bu ñu demee ba waa Baaramundi boroom Baaramundi nijaayam magam ay mbokkam ñëpp ñëw booloo mu jóge Afrique du Sud ñëw ñëpp ñëw dem ci Pape Diouf toog ak moom fekk fa maxtar Diop suba teel fekk fa buur géwél ak ñoñam fekk fa staffu Pape Diouf yépp vidéo yaa ngi fi baalu ko àq ginnaaw bañ demee ci yoon ba pare ñu baalu àq Pape Diouf ku ne xam na ni Pape Diouf nekkul ci ay détails te nekkul ci ay xuloo nekkul ci ay coow li nekk ci boot bi doy na ko sëkk ci li mu nekk doy na ko sëkk ndax liggéey rekk la gëm Pape Diouf baal ko àq ndax Pape jouf ku ne xam na ni xolu yërmande bi mu yor te Pape jouf bi mu juddoo ba tey nii musul plainte doomu aadama bi muy première fois te dañu ko tooñ mu nekk ci dëgg am dëgg mu xam ne nag bu tëjee baaramundi am na ñuy liggéey baaramundi am na ñoo xam ni fa la ñuy daan seen doole am na ñoo xam ni fa la ñuy suturloo bu ko tëjee amaana mën na leen a gàllankoor mu baal waa Baaramundi bi mu leen baalee vidéo yaa ngi fi de dafa toog waa ji ne Pape Diouf léegi yaa nekk ci dëgg ginnaaw baal nga ma wax ma bis boo bëgg a tëgg dama bëgg nga tëgg samdi yi Pape Diouf ne ko duma mën a commencer samedi yi ba pare duma ko eggali vendredi laay jël parce que li nekk sama bopp bi jamono ji ci ay contrat te damaa génnee album bu àdduna bi yëpp di coow li nekk sama bopp bi ci ay contrat mënumaa jël samedi parce que samedi yi rek lañ mooy jël soo seetloo waa héritage le 4 bi Pape Diouf bu ko neexoon mooy tëgg baaramundi mais waa héritage dañ koo fay ay millions yu bari affiche bi bi mu génnee mat na semaine fay ko millions yu bari jox ko xaalis bu baree baree baree baree bari mu war a tëgg héritage dîner gala samedi ajjuma bii ku ne xam na ni Pape jouf mi ngi cosaan bu ci paree chaque ajjuma exclusivité bi Pape jouf moo koy gée baaramundi chaque ajjuma à vie à un an lépp Pape jouf mooy tëgg baaramundi léegi samedi yi nag dañoo bari ay contrat samedi yi ku ne xam na ni le 18 bi ñu ngi fële ca xombal ku ne xam na ni euh, ñu ngi waajal date Le Havre Paris xam nga ku ne xam na ne dañu war a def tournée internationale samedi yi mënuñu ko ziyee moo tax Pape Diouf bàyyi samedi yi jël ajjuma yi désormais chaque ajjuma Pape Diouf mooy ziyee baaramundi lii moo waral Pape Diouf war a ziyee ajjuma baaramundi buñ ci jógee gars yi dañu leen di lancer benn exclusivité boo xam ni man Ketchup maay joxe exclusivité bi parce que ku ne xam na ni suñu album bi mën na lu ne gars yi incha allahu rabbi Pape jouf diggoon na leen arena daaw daawaati jeeg covid bi ñëw yàqu ko àdduna di ko xaar ñu naan dina amam du am gars yi naan fan la ak kañ la nan la koy defee ndax mën na ko Pape Diouf incha allahu rabbi ak la génération consciente Pape Diouf day tëgg arena le 15 juillet gars yi man Ketchup jox naa leen exclusivité bi Pape Diouf arena jam ñaajo incha allahu rabbi daf fay tëgg la 15 juillet bii at bi le 15 juillet bii la fa Pape Diouf di bu neexee yàlla ak yonent bi kon gars yi affaire yaa ngi noonu Pape Diouf baal na waa Baaramundi baalu nañ ko àq Pape Diouf jullit la baal na leen jéggal na leen jox nañ ko date proposé ko ko Pape Diouf na leen mënul di tëgg samedi yi ajjuma yi lay jël parce que samedi yi dañoo saturé te mënul commencé samedi yi ba pare du ko eggali nii la mbir yi demee. waaye bu leen fàtte ni dañuy tëgg incha allah rabbi ajjuma bi cosaan dañuy tëgg incha allah rabbi héritage samedi le 4 dañuy jouer arena dañuy dem Paris dañuy dem Angleterre dañuy dem Suisse dañuy dem Suède dañuy dem Le Havre dañuy dem fépp ci àdduna bi parce que Pape Diouf li mu waay <laughs> balaa nit a koo wayati ci réew mi <laughs> gars yi la mbiri demee baaramundi chaque ak waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal gars yi maa ngi leen di siyaare maa ngi leen di béggee maa ngi leen di jox seen wàccuwaay gars yi ginnaaw ay nag jàmm ku ne xam na ni Pape ju fan yee passé am na issue ak waa Baaramundi ba tëj boîte bi ndax moo nekkoon ci dëgg ba àdduna bi yëpp xam ni moo nekk ci dëgg waaye nag bu ñu demee ba waa Baaramundi boroom Baaramundi nijaayam magam ay mbokkam ñépp ñëw booloo mu jóge Afrique du Sud ñëw ñépp ñëw dem ci Pape Diouf toog ak moom fekk fa maxtar Diop suba teel fekk fa buur géwél ak ñoñam fekk fa staffu Pape Diouf yépp vidéo yaa ngi fi baalu ko àq ginnaaw bañ demee ci yoon ba pare ñu baalu àq Pape Diouf ku ne xam na ni Pape Diouf nekkul ci ay détails te nekkul ci ay xuloo nekkul ci ay coow li nekk ci bopp bi doy na ko sëkk ci li mu nekk doy na ko sëkk ndax liggéey rekk la gëm Pape Diouf baal ko àq ndax Pape Diouf ku ne xam na ni xolu yërmande bi mu yor te Pape jouf bi mu juddoo ba tey nii musul plainte doomu aadama bii muy première fois te dañu ko tooñ mu nekk ci dëgg am dëgg mu xam ne nag bu tëjee baaramundi am na ñuy liggéey baaramundi am na ñoo xam ni fa la ñuy daan seen doole am na ñoo xam ni fa la ñuy suturloo bu ko tëjee amaana mën na leen a gàllankoor mu baal waa Baaramundi bi mu leen baalee vidéo yaa ngi fi de dafa toog waa ji ne Pape Diouf léegi yaa nekk ci dëgg ginnaaw baal nga ma wax ma bis boo bëgg a tëgg dama bëgg nga tëgg samdi yi Pape Diouf ne ko duma mën a commencer samedi yi ba pare duma ko eggale vendredi laay jël parce que li nekk sama bopp bi jamono ji ci ay contrat te damaa génnee album bu àdduna bi yépp di coow li nekk sama bopp bi ci ay contrat mënuma jël samedi parce que samedi yi rek lañ ma jël soo seetloo waa héritage le 4 bi Pape Diouf bu ko neexoon mooy tëgg baaramundi mais waa héritage dañ koo fay ay millions yu bari affiche bi bu mu génnee mat na semaine fay ko million yu bari jox ko xaalis bu baree baree baree baree bari mu war a tëgg héritage diine na gala samedi ajjuma bii ku ne xam na ni Pape Diouf mi ngi cosaan bu ci paree chaque ajjuma exclusivité bi Pape Diouf moo koy zee baaramundi chaque ajjuma à vie à un an lépp Pape Diouf mooy tëgg baaramundi léegi samedi yi nag dañoo bari ay contrat samedi yi ku ne xam na ni le 18 bi ñu ngi fële ca xombal ku ne xam na ni euh, ñu ngi waajal date Le Havre Paris xam nga ku ne xam na ne dañu war a def tournée internationale samedi yi mënuñu ko gérer moo tax Pape Diouf bàyyi samedi yi jël àjjuma yi désormais chaque àjjuma Pape Diouf mooy gérer Baaramundi lii moo waral Pape Diouf war a gérer àjjuma Baaramundi buñ ci jógee gars yi dañu leen di lancer benn exclusivité boo xam ni man Ketchup maay joxe exclusivité bi parce que ku ne xam na ni suñu album bi mën na lu ne gars yi incha allahu rabbi Pape Diouf diggoon na leen arena daaw daawaati jeeg covid bi ñëw yàq ko àdduna di ko xaar ñu naan dina amam du am gars yi naan fan la ak kañ la nan la koy defee ndax mën na ko Pape Diouf incha allahu rabbi ak la génération consciente Pape Diouf day tëgg arena le 15 juillet gars yi man Ketchup jox naa leen exclusivité bi Pape Diouf arena jam ñaajo incha allahu rabbi daf fay tëgg la 15 juillet bii at bii le 15 juillet bii la fa Pape Diouf di see bu neexee yàlla ak yonent bi kon gars yi affaire yaa ngi noonu Pape Diouf baal na waa Baaramundi baalu nañ ko àq Pape Diouf jullit la baal na leen jéggal na leen jox nañ ko date proposé ko ko Pape Diouf na leen mënul di tëgg samedi yi ajjuma yi lay jël parce que samedi yi dañoo saturé te munul commencé samedi yi ba pare du ko eggali nii la mbir yi demee waaye bu leen fàtte ni dañuy tëgg incha allahu rabbi ajjuma bi cosaan dañuy tëgg incha allahu rabbi héritage samedi le dañuy jouer arena dañuy dem Paris dañuy dem Angleterre dañuy dem Suisse dañuy dem Suède dañuy dem Le Havre dañuy dem fépp ci àdduna bi parce que Pape Diouf li mu way <laughs> balaa nit a koo wayati ci réew mi <laughs> gars yi la mbiri demee baaramundi chaque àjjuma incha allah jaajëf